jeri jam huwa komi ala kulli hal genta di yeg ci escalier wala sl bi nga xamne mom lañuy yéggee amna ay tegtal nak yu am solo yu mata bàyyi xel ki nga xam daa gént nak di yeg far daanu loolu moom ak ñàkkalay tegtale ci moom bu doon ku nekk ci barab jiite ko jàppal ne mën naa folli ko bu doon ku nekk ci tëlof saraf du ci gaaw génn ala kulli xaal ba tey tamit ki nga xam ne foo fumtol day gént di yëg ci escalier ak wàcc loolu mooy tegtale koo xam ne day sonn ci tey nit ñi lool fu nit ñi toll muy seeni aajo di leen dimbalte yàlla rek tax wala kulli xaal ñu jël numéro bi nga xam ne képp ko am gént ci ngay awaaye say gént numéro bi 78 la 443 75 27 jëmi numéro bi am na whatsapp képp ko ci envoyé message sa gént suñ ko dégloo dinay tontu numéro bi mooy 78 443 75 27 ku bëgg leneen lu dul lool nag bu ko neexee man naa woote seet wala listixaar wala mu bëgg garabu hémorroïde wala ndoxu siti wala yoo xam ne kattan la incha allah rabbi bu ko neexee mën naa woote wala mu bëgg ko seetal wala listixaar yooyu yëpp incha allah bu ko neexee mën naa woote waaye bu dee gént kese jarul kenn di woote envoyé message vocal directement nga wax sa gént suñ ko dégloo dinañ tontu incha allah rabbi ala kulli xaal eh, ki nga xam ne daa feebar. gént di yéeg loolu nekkul la gën ci moom loolu ak faatu lay tegtale mooy ab digg boo xam ne ab jeex na ba tey tamit ki nga xam ne daa gént di yéeg escalier loolu yokkute la de waaw yokkute la wërsëg la lay tegtale ba tey ba tey bu doon koo xam ne daa nekk ci barab jàppal ni mën naa dem ba jiite mbooloo ma alaa kulli xaal bu dee koo xam day liggéey tur yàlla nag mu gént di yéeg loolu na bàyyi xel ne martaba la dara jaam bi yokk la ba tey tamit ijaaba lay tegtale ci ñoom ki nga xam nag fu mu toll day gént di naaw loolu rab moo koy def fu mu toll rek day gént di naaw di nekk ci jaww ji loolu rap yi dëkk ci jaww ji ñoo koy def nga xamne da am far rap bo xamne da daa ci jaww ji wala ci ros rap tax fu toll di naaw bu dee ben yoon wala ñaar yoon lolu ak ku daraja ji yok la kon gént di yek ay daraja ji yok la ay martaba lay yok lu mata bayyi xel la baax baax kon gént di yek loolu ba bi yokk la wërsëg la ba tey ba tey tamit aajo ju faju la lu mat a bàyyi xel la baax a baax nga xam nag daa yéeg ba ci kaw a taxaw taxaw loolu tamit daraje ju kawe kawe la koy tegtale daraje ju kawe mën naa dem ba jiita ay mbooloo wala bu dee fu nekk fu bëri ay nit mën naa dem ba jiite fa ba tey tamit mën naa dem ba mbooloo wóolu ko jox seen kàddu mu leen waxal way lu ñuy dox mu doxal leen ko mu gént nag nekk ci kaw a kaw loolu lay tegtale ala kulli xaal ki nga xam ne moom it daa feebar gént di yéeg loolu dig bu jege lay tegtale mata bàyyi xel la baax baax kon gént di yéeg lu mata bàyyi xel la incha allahu rabbi kon am na ci ñoo xam ne baax na ci ñoom am na ci ñoo ay daraja yu yokk la ci